diggante Ngagne Sène la ak Amsa Amsa mooy luur bi Ngagne Sène moo ñu woon ginnaaw nii dañuy xel nag buñ jógee ci Ngagne jàll ca Tony jóge ca Tony jàll ca Ngagne noonu lañ ko jàppee wala jóge ca Amsa jàll ca Papa Gueye Mouma jóge ca Papa Gueye Mouma jàll ca Amsa noonu la koy noonu lañ koy jàppee arbitre nee na leen bëre leen Ngagne Sène ak Amsa bëree gunu bu Papa Gueye muuma la eh Amsa lan lay def Amsa jël na tànku Ngagne Sène ba Amsa ah eh, Amsa Ngagne Sène da daan Ngagne Sène war na Amsa Ngagne Sène da lay doo ci génn ay waay arbitre boo taxu woon mu baax ay waay arbitre boo taxu woon ay waay Ngagne Sène tëral na ko Ngagne Sène Amsa Ngagne Sène tëral na am